rapport yu tukkee ci corps de contrôle yu état bi daanaka yëpp nduroo ñi nga xam ni ñooy saytu doxalinu administration daanaka lañ nemmeeku lenn la mu di ab mal gouvernance yorin bu ñaaw bu moomeelu askan wi mu di loo xam ni daanaka nañ koy defee ñëpp xam nañ ko xam nañ fa muy jóge ak fa muy jëm xam nañ itam la ko waral mu di jëf ju bon yoo xam ni sax nañ ci administration fii ci Sénégal saafara yi nga xam ni tukkee na ci corps de contrôle yi daanaka amul benn njeexital kon nag ñuy samp laaj naan naka lañ war a def ngir tàkkalikoo rapport yu tukkee ci corps de contrôle yi daanaka wane nañ fa mën a yem mu di ay procédure ci wàllu yoon yoo xam ni dafay yàgg te du mujj fenn état di ci perte xaalis boo xam ni du ko ci jëlee faaw kon ñu soppi none lañuy tabbee moom ay critères ngir tànn ay ministres ay directeurs généraux waaye itam ñuy gérer ay projets yu am solo faaw ñu am xarañteef waaye itam faaw ñu am expérience bu dëggu ci wàllu wuñ leen di dénk jiital jikko bu rafet ci mission yi nga xam ni ñu ngi leen koy dénk ñàkkum critère gi ñu nemmeeku ci pal yi moo waral lu ni mel dem ba jafe la xeexum lii di guerre di corruption faw ñu indi tamit ay saafara yoo xam ni danañ mën a nangu alal goo xam ni jël nañ ko ci lu jaarul yoon ayib bu deful loolee dana jafe lool ñu xeex jëf ju ni mel nga xam ni day tax ba administration bu Sénégal du mën a yegg ci mbëbët yi nga xam ni am na ko ngir askan wi